mën naa nekk. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. namoon naa waaye baal maa raw xam nga. laa ci weekend bi. waaw eh, namoon bi toog di la cons du lundi au jeudi xam nga bu ñu waree toog ñaari fan yi samedi bi sax yaa ngi may woo. pour ñu neexal ko. mais boobu maa ngi woon ci affaire yi di tërëri am yi ma doon coaché. Mhm. kon samedi ñëwoon nga. samedi ñëwoon naa mais comme après. léegi programme la naan il faut que ñu sànq def ko vendredi soir bi parce que gars yi ne dañuy namm donc il faut ñu ah, jullee pare rek. yaa di ñëw pour samedi a noppul ak dimanche bi. benn bul xalaat yow bëggal rek yow ñoom ñu bëgg xam nga ñun nag amuñ benn problème hmm. àdduna. amuñ benn problème ñun benn problème lañ am mooy li ngeen bañ moom la ñuy bañ. li ngeen bëgg moom la ñuy bëgg cas yu bëri nga xam dafa traversé si kii bi. waaw ah. si weekend bi waaw. Ah. man lay amul problème leen bu ñëwee lépp la leen jox. waaw ah, loolu nag bu leen ci am dara moo tax it fi ngeen ko jàpp baax na fii ci télé Sénégal ak lu bees. ak ñu leen di indi yi bees. ak moom le grand le gentleman. ak Ousse l' artiste le grand from Ndar Géej seen louis waaye dëkk maam Kumba Bang. la Simon Saint-Louis dëkk Gorgel Diagne. ay sama maam Diagne Mama Diou. aw na la jig. aw bu la jigee loolu yotu jël borom fii ko fi làng bëggum riche mu boole la ci doo juddu yi doo mbadantaan fii nga dëkk. xam nga ni loolu neex na dex gi fa la dajeek géej gi lépp saf xorom. saf neex moo taxit ma ne leen kaar fatil lon curub curub war was si jay jinne dëmm noo xóor man la ak moom bu ñu ay jege fenn bu dara mën ci yéen dara waaye yéen it bu leen ay jege fenn te bu dara mën ci yéen dara yéen yéen ñu koy jox ñun ñu leen koy jox sama wax ja laay delloo waxaat na ko maam Matar Seck mbooroog mag ñu baax ci bu ngeen defee la ngeen defoon ñu defaat la ñu defoon te bu ngeen waxee it la ngeen waxoon ñu nit dinañ waxaat la ñu waxoon ndax waxa waxaat du bëri wax na fekk li ngay wax doon li gën te mu doon li neex nit te ñun ñi ñuy seetaan boo déggee ma ne ñun ñi seetaan mooy ñun mooy ñun ndax yéen yéenee ñun te ñun ñooy yéen kon ñun yéen yéen ñun la ñun yéen yéen ñun ñun ñun ñun benn. yëpp benn bi la. waaw alors moo ngi noonu euh, wax ko sànq on va parler de l' actualité xam nga ne ñun li dans émission bees bi euh, lépp li nga xam ne moo doon actualité moom lay waxtaanee te fu mu toll nii nag démb fu mu toll nii Sénégal ñëpp na woon tekk dama yaakaaroon ni jour boobu jour màggal la woon wala jour tabaski ba fu mu toll nii dakaar benn orto dawul ñëpp na sell. xam ngeen ni combat bu mag bi nga xam ne ni ça fait cinq ans ngi Sénégal yëpp daan ko xaar si diggante kii di amaa Baldé ak kii di Modou Lo borom Pikine borom Parcelles démb na si la coow yi daal di jeex tàkk ñi gis kii di Modou euh, daal di daan kii di Ama Baldé daan bi nga xam ne nii amul benn warante Ama daal def quatre appui waaye tamit leen lu si gën a ràññee mooy vingt-trois coups yi nga xam ne ni kii di Modou Lo doon ko kii di Ama Baldé lan ban erreur la def ba kii di Ama Baldé daanu Modou bi leen biteel eh, Ouz. Hmm? Ouz. Hmm? Ouz. Hmm? Ouz dem bi na la wax rek na sérieusement nan nga jàngatee combat bi dem. en tout cas waxoon naa leen ko fii. Mhm. Modou Lo du ko nuy sorxo. sorxo waxoon naa leen fii wax ji lu mu bari bëri bëri bëri bëri mhm. un ba vingt six. Modou Lo ku ci nekk dana fa dugal benn kurpeñ jox la ko addiya mhm. waaye mën na ñett la fàtte te waa ji moo tax mu fàtte ko. mat na de ca kaw la matee. Mhm. Ah, waaw nga dëgg. ca kaw la matee 3 la ko jox kaw suuf mu jox ko 23. Hmm. man na de. gox bu ne. jox na lu jox na lu ku man bañ tojee rond case ba laa xam ne amaadu am ndam. xam hmm. nga kanam moom comme rond case ba astafurlah. ah maa ngi jéegul maa ngi jéegul ñoo ñoo ngi jéegul. Paatang lay affaire yooyu lu leer laa lay wax gis nga <laughs> Modou Lo xaj <laughs> Modou gën a métti Modou Lo na ñëw di bëre Modou Lo yi hypocrite di indi ah, li war a def yëpp da ko def ñëw toog ne booy bi kaañu mbapat de un Modou dafa ñëw ne Ama Baldé kaañu mbapat sol cuissère ngemu ngemu mbapat bàyyi lépp pour ne ko kaañu mbapat mbapat gaa nga doon wax bu ban tey. quand ñu ce que maanaam da ko yóbbu woon euh, dix ans wala quinze ans mooy ba ñu bëree fële sa passé. loolu la ko indi laat ne ko kaañu ñu wax ji wax ji li daan Ama Baldé leen le premier coup ndongi. nang man fi ma toll dégg wang ma ne eh. parce que nga toll dégg dégg wang. Mhm. bi mu ne nii. sell la wang ma ne. Eh! ki day dee. man ni kii day dee ndax am na hémorragie interne de ndong que ah loolu coup de coup ngeros la. coup de wang la. ngeros. moo tax ama <laughs> dafa ngeros. foofu nag dafa def erreur boo ko dawal génn saako yi. daw génn. sérieusement Modou Lo la loqati. moo la dogoon ne nii xoolal. bang nga dagg wang. mu ne ko jur nga dégg mbës mu defaat beneen troisième bi kan mu ne groupe. mais jam na ko ñaari jam. yow yow jam koy yor lancer di uti fi tax. loolu rek la nga may jam laa ilaha yow moo loo xarañ loolu la dégg amaa Balde moo daan boppam ndax warutoon indi bàkku bi foofu. ama yebbi lay bañ a dégg par la force dina ko dégg ama yebbi te dagan gi dab rëbb te saxin tëngal gi yebbi lay bañ a dégg par la force dina ko dégg kenn taas mba taas tatar génn keneen keneen xoola taas mba taas keneen ke génn gi dab rëbb jëjët i man dew dew ma ci Balla Gaye Balla Gaye lu leer laa lay wax gis nga maanaam Pikine ndeke am na sapeur pompier buy ñëw ci làmb ji di ko nëbbu waa ji bu ko sauvé wu mais waa ji comme mu jaar. la ilaha illallah boo daw loo xam ne mais waa yow. Ama Baldé lu mu fonk kooku na ko gën fonk. lu leer laa lay wax. dëgg yëpp kuu yi mu ko dóor yëpp heureusement duggul biir parcelle croisement 22 la toog kuu yi. kuuy bu duggoon biir parcelle leneen la ñuy wax mais Ama Baldé li ma ci seetlu tamit ci combat bi lan la mhm. mooy Ama Baldé conseil bi dañoo juum non parce que l'histoire mhm. retiendra àdduna Modou Lo a fi mos dóor nit ba ay mbokkam jël ko ci biir combat bi l'histoire retiendra Seck maa ngi dégg ñu bëri ko wax mais loolu amoon na fi de. Eh, jël si dara booy dine mooy jëkkëru kii bi. ndéygay njëkko ndéygay bi. waaw rakk Ama Baldé bi. waaw du ko dóor ba gars yi ñëw jësi ko tas combat bi li xewoon si Ama Baldé bi nii. waaw booy bi euh, waay Jacob. Jacob Baldé. waaw Jacob Baldé moog waa booy dine ba ñuy bëree. waaw da koo dóor dóor dóor dóor ba doomu euh, waa géejuwaay fàqe dugg si biir géew bi. dem atte atte ah. mooy la deuxième fois peut am ñoo xam ne duñ suivre làmb moo tax ñu yox lu leer laa lay wax de waaye lu ma ci xam nee naa la conseil bi des na. xam nga mbër mu toll ni Modou Lo. Mhm. doo ñëw di bëreeg moom ne da nga kaa ñeme partout di ko song. Ama Baldé erreur bi foofu la. liñ ko gëmloo woon loolu nekkul. Modou boo ko songee dafa am noo koy songee Modou Lo doo ko song song te xel. Mhm. parce que Modou Lo du ñuy kenn booy tegee xel ne da nga koy song Modou Lo ñaata la fi toroxal Paul Maurice bool kayri mu dóor nga daanu keneen ak keneen ak keneen wax naa leen ko ba tey yow ki nga xamante ni bi muy tàmbali di bëri dañu bu doon roi des arènes nii lay toll mbër mu ndaw la mu dem ba doon roi des arènes mhm. kooku am na lu mu def progressé daan ëmma seen ñaar yow yaa maa daan ëmma seen ñaar yoon rek maanaam lu muy bind la ku dàq bëri si Sénégal. nga ko ñaari yoon ñaari yoon. wala ku dàq ku xam ne. booy li bay wax yi dàq bëri Sénégal. cinq personnes boo nee un doo ne deux wala nga ne un newaat deux. un deux doo ci génne Eumeu Sène neex naqari. mënul nekk da ko daan ñaari yoon ci xolam bëre. Paul Maurice ku ko dàq bëre Paul Maurice. ci séeréer. si mbapat lu ma def si mbapat. ci mbapat ñaata nag ñaata kër. booy kare nga de ko wan mu wàcc. waaw. léegi kooku ñu conseillé la ni que da nga war a ñëw fiir ko jaar ci kawam pour daan ko. mais mais mais man li ma ci jaaxal Ama Baldé moo doon wax ni. su teeloon gis Modou Lo du ci def 1000 francs mais loolu bi dafa dëpp de. mais loolu signature la. mais comme foofu nga waxee euh, kii di kii kii kii di euh, Ama Baldé maanaam waru woon bari noonu manoon pour man defet moo ñëw rek mais Ama Baldé lu mu waroon bëre exactement loolu def peut-être defet moo ko si fekk parce que Modou dafa nekk loo ki nga xam ne nii képp ku nga xam ni da nga taxaw di ko xaar wala nga jël euh, lamb ji di ko cons Modou daan na la ñaari mbër ñoo ko fi daan ñoo xam ne abi dinaan pip mu da gaay das kawam daa di koy jaxase muy Balla Gaye Balla Gaye ñaari mu ko daan yëpp noonu la Bombardier tamit yu mu ko daan yëpp noonu la donc Ama Baldé tamit nii lay daanee mbër yëpp donc ba ma ba maa de forum la indi. <laughs> yow fu ne nii defar defar gee la jàpp ba léegi. man man man man xam nga ne Eumeu Sène mooy pour wax combat boobu man mooy sama mbër. vraiment yow kii dañ kaa doora doora doora doora doora doora. mais euh, en lenn xam naa ko moom kuy jaay produit bi karaw demal Pikine. mais eh waaw. mais Selbé wax na. produit Selbé am na ndam. ah merci beaucoup Selbé. acca yaay booy. Ah, am nga ki fen kañ mooy ki ne gisoon na korone bi di jóge di jóge fii di dugg fële. ah. borom karaw bu ah, bëri bi moo xool lool mais man amul daw kenn du yow. affaire yi amul amaa yee bi bañ a dégg ba pare ngeen dégguloo ko ko. waaye Ama Ndié bi lay bañ a dégg ngeen ni dina ko dégg moo tax dégg na ko toroxal leen. Selbé nag Selbé dafa wax lu leer nee leen carrément ne leen combat bi bu amee suba am na koo xam ne ndam di commencement maanaam samedi bi nekk am na ko waaye naka samedi bi kese la mu ko samedi ak dimanche yëpp benn la ak ku takk ñaari morceau yi nga xam ne